maa ñuy door avant ñuy jàkkaarloo ki nga xam ne bi c'est parce que euh, gis nañu événement malheureux yi nga xam ne moom la Sénégal dund. Euh, fan yii yëpp comme ma ne gis nañu comment ça gis nañu événement malheureux yi nga xam ne moom la Sénégal génn. mu am euh, beaucoup de de décès. décès noonu aussi am dans des circonstances yoo xam ne yu yu doy waar la. Mhm. et li ñu gën a jaaxal commencé wul léegi. sa mhm. commence depuis mars 2021. Mhm. où ñu gisoon ne am na ñu quatorze doomu sénégal yu ñu boom. dans des euh, circonstances yoo xam ne kenn xamul. Euh, dès lors que l'État bi nga xam ne moo censé garantir li nga xam ne mooy la paix sociale. bi nga xam ne moo censé garantir les droits. des Sénégalais. boobu ba léegi amul benn jéego. bu nu teg en place pour élucider ces meurtres parce que gis nañ ci ñu bari ñoo xam ne leen boomoon et balle réelle moo leen rey donc euh, bi ñu defee loolu noonu le ministre d'alors euh, Sidi Kakaba pour ne pas le nommer mu génn wax ne ñu def une enquête indépendante deux ans et demi après dara amu ci. donc euh, mu amaat beneen manifestation dans des conditions que vous connaissez jarul ma ci ñëwaat ci loo xam ne jàpp nañ ne ay caaxaan ay tapare lañu ñu amaat lu mel ne trentaine de personnes de Sénégalais décédées ci waat mhm. loolu bu mu amee on pensait que cette fois-ci l'État allait être responsable mhm. ouvrir une enquête sans attendre mhm. et puis wax sénégalais yi doomu sénégalais noonu moo leen rey mais gis ñu gis état bi nekk dans une euh, campagne dans une machine même qu'ils ont mis en branle une machine de manipulation et de Euh, jusqu'au plus haut sommet de l'État, parce qu'on a vu quand même des ministres qui occupent des fonctions régaliennes euh, sortir devant les Sénégalais di leen wax naan leen fii kenn rey ñu fii euh, y a pas eu d'enfant qui a été servi de bouclier humain et cetera muy nekk loo xam ne ñu nekk dans un déni total ci loolu nag lañ ne bàyyi côté comme que on a un état boo xam ne parce que ñun jàpp nañu le Sénégal a cessé d'être un état de droit mmh. parce que attribut yi nga xam ne mooy tax état nekk état euh, Sénégal wanewu ko en tout cas parce que quand on voit perpétrer des crimes de masse ñii ne forces de l'ordre yi la ñii c'est des miliciens armés qui opéraient de manière impunie aux côtés des ordres de l'ordre la moindre des choses c'est que l'État devrait quand même ouvrir une enquête pour mm-hmm. élucider mm-hmm. le monde entier mm-hmm. et gis nañ ne depuis deux ans et demi ñu ngi ci tappale yooyu noonu donc c'est dans cette euh, mesure là qu'on s'est dit il fallait absolument que euh, ñu collecte des et essayer de faire en sorte que ces crimes-là ne puissent pas rester impunis. Mmh. Donc c'est dans ce cadre-là que M. Juan Branco, en collaboration avec PASTEF, en collaboration avec tous les Sénégalais, parce que la plupart des preuves qu'on a collectées viennent directement des Sénégalais, mmh. à l'instar des vidéos, il y a pratiquement tous les médias euh, nationaux et internationaux diffusés ñu am cette collaboration là pour essayer de xam sénégalais boo xam ne ñàkk nga ci bakkan wala koo xam ne tu as été t'as t'as été euh, t'as pris des balles réelles loo xam ne mënul nekk qu'on puisse euh, faire un une carto xool ku ci nekk lan moo comme que état bi ñu war a deful liggéeyam. ñun on fait ce travail là. jëpp ko nag lépp li nga xam ne mooy les juridictions internationales. parce que nit ñi ngi wax CPI CPI rek mais yamul CPI. fépp foo xam ne li ñuy euh, Euh, Sénégal signé na fa des ratifications pour pouvoir euh, être justifiable dinañ fa déposer pour que les crimes les auteurs en tout cas de ces crimes là que muy policier que muy euh, politique que muy nervi que muy milicien et cetera que ñooñu puissent répondre leur acte. ça le c'est ne plainte bi à bien sûr bien sûr a pas que la CPI. fépp foo xam ne encore une fois parce que. si le Sénégal. d'accord en tant qu'état de droit. avait fait son travail aujourd'hui on ne devait pas recourir à ça soxlawuñu ko parce que on est des Sénégal des Sénégalais am nañu ay institutions qui sont censées indépendantes pour faire ce travail là mais encore une fois pourquoi je me permets de faire l'historique parce que ça a démarré depuis mars 2021 et gis nañ depuis mars 2021 amul benn jéego bu ñu teg d'accord donc il y a un état qui est là pour protéger ñenn et pour brimer ñeneen ñi donc loolu nag ñu jàpp ne mënul wéy comme que Sénégal encore une fois dafa ratifier mmh. des conventions internationales mmh. fépp foo xam ne Sénégal signé na fa mmh. ñun dinañ fa dem on dépose plainte et encore une fois les auteurs de ces crimes là odieux qu'ils puissent répondre leur acte tout simplement Macky Sall démb ñëw na Paris. Hmm? mais mbooloo mi génn nañu militan yi génn nañu. def na sa presque acte de candidature. non Macky Sall est-ce que nekkul ne riposte la seen mouvement bu graaw bi ngeen defoon keroog euh, manifestation après le les événements. Macky Sall amul mbooloo Macky Sall il est fini Macky Sall il est vomi par tous les Sénégalais. la preuve dimanche il y a quoi trois ou quatre jours on était ce qui est communément appelé son fief muy Mat la Jolie bu ñu fa demee gis ngeen. tous les journaux français l'ont repris. L'opposition, fi nga xam ne est censé être son fief, l'opposition est allée là-bas pour mettre un tampon et pour montrer au monde entier que Macky Sall ne représente plus rien dans la diaspora. La preuve, Macky Sall fépp fu mu dem ci àdduna bi, il est hué. donc euh, on ne peut pas user de de, de stratagème ñëw fiy jënd ay nit collecter des cars le mettre dans un truc et s'offrir en bande de foule c'est ridicule c'est même ridicule la part du président. conférence bi ban heure démarrer parce que 11h la ñu waxoon actuellement. xam na là ça va démarrer. ça va démarrer là ça va démarrer. il est installé ça va démarrer. merci beaucoup monsieur le député député euh, Aliou Sall euh, moom nga xam ne député Pastef la bu diaspora moom lañ doon def benn genre mise à bouche ñuy dugg ñu dem si salle bi nga xam ne fi la ñu amee conférence de presse nga xam ne. donc ñu ngi ne rek toog